dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéene kaay ñu xëyandoo yéene kaay gii di libération mu xëy di ñu xamal na ñu woppi korona coronavirus jamono ji ma ngi def lu doy waar ci réew mi bu passé yokk gi nga xam ne maanaam yokk na ko ci réew mi ni ki démb bilan bi jamono ji maanaam toll na si juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent 79 mort yoo xam ne Sénégal am na ko ba mbas mi commencé ba léegi ni ki démb ci àdduna bi sax maanaam mbir mi dafa mel ni dafa gën a yokk dafa mel ni dafa wane geneen xar-xaram goo xamante ni maanaam gu doy waar la ndax lu toll ci 150 000 cas la ñu daal di ni ki démb ci àdduna bi waa OMS ñoom nag ñoo ngi alerté maanaam ñoo ngi dànkaafu àdduna bi maanaam ñu gën a jël seeni matukaay ndax nag mën naa am leneen loo xamante ni mooy gën a doy waara organisation mondiale de la santé nee nañu nag ginnaaw woppi coronavirus ji àdduna bi maanaam du mel na mu melal docteur Aloyse Waly Diouf mi nga xam ne moo nekkoon directeur cabinet ministre bi ñu dénk wàllum wérgu yaram ci réew mi di Abdoulaye Diouf Sarr daan nay tekki tan tànkam dem ci kuréel gii di OMS organisation mondiale de la santé yéen a kaay gi mu ñu xamal la ñu bi docteur Aloyse Diouf doon def ak waa ministère de la santé maanaam nag yaram dawoon na yéen kaay gi nee na ku ñuy wax Alphonse Thiaw ku jege woon lool ministre Eva Marie Coll Seck jamano ji mu nekk sante maanaam moo wuutu ki nga xam ne mooy docteur Aloyse Waly Diouf ñi nga xam ne ñoo ko xam miin ko nee na ñu ko miin terrain bi la maanaam ku xarañ la ci mbir mi yéen kaay gi di suddi ko di jemu xëy di ñu xamal la ñu ñàkk ndox gi nga xam ne moo nekk ci réew mi fukk waaye natt daan na koy passé waaye tamit sonn gi nga xam ne askan wi sonn nañ ko ci wuutu ndox loolu tamit fukk waaye na koy ndax askan wi jamono ci maanaam koo gis ma ngi tol tolaan ŋàbbu bidong wala mu ŋàbbu pan maanaam di wut toq ndox yéen a kaay gi nee na gars yi robinet la ñuy xëy di wër maanaam bu jot deux heures la ndox mi di toq te ku amul sens maanaam doo ca am te loolee nguurug Sénégal ñoo ko war a lijjanti yéen kaay gii di Dakar Times mu xëy ñu xamal lan ñu manifestation yi nga xam ne askan wi dañu koy faral di def ci biir réew mi yëpp maanaam loole lu jara càmbar te loolee la nga xam ne moom lay wane maanaam nag sonn gi nga xamante ni askan wi sonn nañ ko maanaam ci seenug dund te loolee nguurug Sénégal daal dañ cee war a bàyyi xel yéen kaay gii di la turbine mu xëy di ñu xamal nañu lu jëm ci wàllum njàng mee ko njàngale mi njàng mu kawe mi Cheikh Omar Anne daan nay wax ne weeru sàttumbar jàpp octobre si la ñu jàpp ne étudiants yi danañu daal dem jàngiwaat ba tey ci biir journal bi mu xëy di ñu xamal nañu banque mondiale lu toll ci soixante milliards daal ko Sénégal waaye gii di libération mu xëy di ñu xamal nañu libéré nañ ko Seydina Thioune doomu ñoo xamante ne ay jege ñaale Aïda Diallo lañu dañu doon amal ay ñol-ñol ci fi nga xam ne mooy Médinatu Salaam jëm ci wàllum piccoo ak mbaaloo ndono Cheikh Béthio Thioune procureur bu Mbour moo leen tegoon loxo bàyyi na leen waaye nag nee na leen nag su ma leen woowee ngeen ñëwaat yéenekaay gi nee na Seydina Fall Bougazelli mi nga xam ne moom lañ doon tuumal ci ay léexu rekk njaaxoo mi faux billets ni ki démb dégluwaat nañ ko waaye lépp benn waaye buñ naan kalz moom la ko sottee yéenekaay gi di Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu duwaan bu ñooro ni ki démb lu toll ci trois cent kilos yamba yoo xamante ni teg na ko loxo réew mi quotidien xëy ci Lamine Ndiaye mi nga xam ne ab artiste comédien la bu ñëpp ràññee ci biir réew mi ak bitim réew maanaam turoom dëgg di Mouhamadou jara dëkk Medina Lamine Ndiaye ñëpp xam ko ci réew mi ak li nga xamante ni def na ko ci mbirum aar maanaam mbirum théâtre ci biir réewum Sénégal jafe-jafe yi nga xam ne moom la artiste yi amee wax na ko ndax waxtaan wu rëy la séq ak wa réew mi quotidien wax na li ko dugal ci mbirum théâtre wax na ci rivalité bi amoon diggante daaray kocc ak jamonoy tey wax na relation ma ak artiste yi rawatina Pape Faye wax na lan moo ko dugal ci nag série maîtresse d'un homme marié wax na ci li nga xamante ni mooy Covid 19 beeg lu jëm ci wàllum njàppandal gi maanaam waxtaan wu yaatu la si xëkk waa réew mi quotidien yéen a kaay gi di Sud Quotidien mu xëy yóbbu ñu diwaanu Ziguinchor mu ñu xamal ñu opération sécuritaire bi nga xam ne armée sénégalaise maa koy def ci diwaanu Casamance loole nag waa MFDC ñoom nag provocation la ñu ko jàppe yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu xëy dikkal ñu ci dette africaine bi nga xamante ni maanaam bëri na ay réewu Afrique yoo xamante ni ñoo ngi sàkk ñu daal leen kay baal sommet bi nga xamante ni doon nañu ko amal njiitu réew ma Chine daan nay wax ne bor yi moom dina ko daal di dakkal ci lu jëm ci présent intérêt yi ma ngi ci yéen kaay gii di réew mi quotidien loolee mu nekk xibaar bu neex ci réewu Afrique yi yéen kaay gii di sunu làmb xëy nag ci écurie bii di écurie Waalo nee na 2009 ba 2020 lu toll si juróomi nit daan nañ say faatu lu toll si ñaar fukk ak juróom-ñett maanaam am nañu say gaañu-gaañu journal bi dikk na ci accident bu metti bi nga xam ne moo amoon écurie Waalo ba ñu bëri ñàkk sa seen bakkan waaye nag lees waxul yi nga xamante ne moo am ci boobale accident moo bëri lool journal bi xëy daal di nag laaj ci Lac de Guiers numéro 2 ak Bosoka ñu nettali ci ay xibaar yu doy waar ma nga ci yéenekaay gi di sunu làmb